maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp ci seen teewaay tey mu nekk bés bu màgg bés boo xamante ni madame la président Socé Diop moo ñu invité woon ñun ñëpp fii pour ñu dajee fii ndax ñu xewlu ci màggaayu weeru koor wi nga xamante ne joxe ñam lu baax la moom mu amoon comme à l'accoutumée di ko daan ko def at mu jot di invité ay ay mbokk am di jàmmam ñu bëri jóge ko ci dëkk yu sori sax ñëw ba fii pour assister dimbale ko jàppale ko ci bésam bu màgg bii nii nga xam ne yàgg na ko def at mu jot ah di gërëm kenn ku nekk ci turam ak santam ci déplacement bi mu def te xam ne boppam la ko defal di gërëm personnelu conseil départemental bi yëpp di gërëm ñi nga xamante ne ñoom la jàppante loon doon politique ba yàlla def teg ko ci kanam département bi di gërëm kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ak euh, ñu mel ni ñoom tonton Barham Thiam ak euh, le président El Hadji Malick Mboup di gërëm jigéen ñi nga xamante ne tey su fekkente ne ndogu lii neex lii ñu am fii tey ñoom ñoo nekkoon ci waañ bi di fa sonn di gërëm mag ak ndaw maanaam daal kaddu yi yëpp kaddu yi ngërmande la di remercier képp koo xam ne bàyyi nga sa temps tuuti ñëw fii nii ku nekk xam na ne ñi fi tasee ñëpp am nañ ndogu waaye teraanga la rek boo xamante ni ñuy dajee nii di saafuwante moo taxoon ñu ne nañ waxtaan waxtaan bu ndaw képp ku nekk li nga xamante ni moom nga am ci lu baax pour wax ko nga jël kaddu ñu waxtaan waxtaan bu gàtt balaay le temps ñu permettre ñee ñu yeggali reer bi bu nga xam ne bu ñu reeree rek dañuy tasaaroo. ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi di gërëm Adja Socé Diop ci li mu def nii xam ne du guléet yàgg na ko def Koungheul invité ay ngoom ay ñu muy bokkal liggéey bi organisé donc ndogu bu mel nii. di ko ñaanal aussi ci yenn bu bees bi nga xam ne moom la yenu yal na ko yàlla. may téeñ bi mu attan ko mu barkeel mu jëriñoo ko bon ni mu ko waxee léegi il faut que ñu booba boobaale moo di Adja Socé Diop rassembleur a day day day day boole ñëpp ñu nekk benn pour que président Macky Sall li mu bëgg yàlla may ko ko parce que président li mu wax daf ne élection yi di ñëw kenn moomul ko élection am la bu ñu fexee ba ba mu ñàkk assemblée nationale bi dañuy perte ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ànd ak moom donc loolu Adja Socé Diop mi ngi ciy invité képp koo xam ne waa Koungheul nga département de Koungheul nga képp ku président de République tànn ñëpp ànd ak moom jàppale ko pour président de mën a am majorité à l' assemblée nationale. wa rahmatullah ñu wax alhamdulilahi rabil alamin dellu waxaat alhamdulilahi rabil alamin dellu waxaat alhamdulilahi rabil alamin ndax bés bii ku ko fekkee rek wara ngaa gërëm yàlla sooy ut ba yàlla jox la danga ko naan jërëjëf tàllalaat ko loxo nag nekk dama bëggaat leneen soose ñu ngi koy gërëm ñun ay parti allié lañ dama laa yéex mos dama laa yéex a parce que 2014 bi nga may seet sama départ ne ma naa la jàpp man man naa laa damaa du ma tooy ñaari yoon ka ma àndaloon dem ba ba teg ma si say loxo jàppaleel ma ko dinaa la jàpp ba nga yëg ne jàppale naa la dama ko wax mbooloo mi su may wér bàyyi ma fi dinaa la defal lu ma mosul defal kenn parce que yàgg naa la ko wax dama la ameel bor bor bu ma la ameel dama nekk fi surveillant général ci CM bi ñu manqué ay classe Jim Kebe sama doomu ndey wax la ko nga ñëw def fi ñetti classe daar daar mu nekk affaire boo xam ne la mu réglé bëri na lool te baaxoon na ci Koungheul yàlla mi dara tëwut di dox di dox di dox ba jox la conseil départemental ñu am ci yow yaakaar parce que at mii atum jigéen la nga nekk benn jigéen ci jigéen ñi nga xam ne ñetti jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk président conseil départemental yéen jigéen yi ngeen war a takk seen sër jàppale ko ànd ak ñun góor ñi ñu takk suñuy géño jàppale ko yëkkati ko yëkkati ko làq ko foo xam ne yàq du fa àgg ko dinañ def te yàlla dinañ ji ba su ko defee bés yu mel nii dañu gërëm rek parce que li nga def yaa ko moom sa poos la génne su la neexoon nga def ko rek on jóbeen yi ngeen defee ku noonu. yàlla na ko yàlla nangu yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu taw féex gudd fan wér te wéerle ah di wax rek nag ah yàlla mi di borom mbaax defal nañu mbaax ba pare gannaaw bam ñu joxee jigéen mu jiitee conseil départemental fii ci Koungheul jigéen goo xam ne xam na soxla naataango jigéen moroomam yi ah di def euh, euh, macha allah fépp amul xaaj ak seen euh, barki démb rek ñëw na fii paroisse di jàppale si kerceen yi parce que xamoon na ne dañoo war a wori te ñun xam ngeen ne ñun suñ koor yi ngalax la ñuy defar naam yeneen responsable local yi def nañ mais moom tamit ci Dakar la jóge ne tey lu mu guddi guddi guddi guddi guddi dinaa egg Koungheul te dinaa def sama li ma tàmm di def parce que nekkul duñ ne bulet yàgg na koo def yàgg na koo def surtout ñun jigéen ñi yàgg na defante defanteeg ñun les femmes catholiques femmes catholiques de la paroisse man maay seen responsable toujours saa yu ñu amee euh, kii lu luñ ko wax rek moom day ñëw wuyu si wax dëgg yàlla macha allah yal na la yàlla defal jàmm lépp li ngay def nag gis nañ ko de gis nañ ko c'est noppi le silence parle beaucoup de choses moo gën ngay wax rek di wax rek di wax bu yàggee dañuy ne dëgg bu guddee du nekkati sax dëgg waaye boo noppee nag nit ki danga koy bàyyi yàlla rek ñun yàlla rek lañ lay bàyyi yaa xam loo bugg ci sa xol yàlla na la ko yàlla defal waaw ñun dañ ma ko demandé il faut que ma wax waaw di leen wax ne vraiment ñun moom soose du suñu gan yàgg nañoo yàgg nañu ànd ak moom xam nañ li muy liggéey xanaa dañ koy gën a ñaax rek mu gën a yokk liggéeyam comme ni mu ko daan doxalee mu dem mu gën koo yaatal ba nga xam ne nii dina wër département bi yëpp parce que fi ñu toll nii nag dina xam ne ni nekkatul nitu euh, kii yëpp kese léegi département bi yëpp muy euh, koo xam ne nii parti allié wala opposition yëpp yow yaay seen président nga góor góorlu jàppale jàppale ñëpp xam na ni ñëpp sa ginnaaw lañ nekk ndax ñun yow lañ yaakaar te vraiment ñu ngi gis sa liggéey xam nañ ne yaa ngi liggéey liggéey bu rafet ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ne vraiment li maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu jotaay bi en fait di baalu ñëpp ak di leen baal ak amaan na ma ndaw war moo na wax sax ci samay côté ay yaayax yooyu kàddu yoo xamante ne de remerciement la ak sant comme ni ko ñëpp waxee la répétition elle est pédagogique mais faw ñu wax ko Maman Socé ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa taxawaay en tout cas duñ ci jug di ko wax la lion bi nga doon du hasard te tuddee la ko pour rien danga ko prouver ñu ngi lay sant de toutes les manières di la ñaanal yàlla dëgëral sa taxawaay nga yokk ci kaw ci kanam merci. maaleykum. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam di jiital si nuyoo bi suñu président conseil départemental euh, di nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen di rafetlu jotaay bi bu baax euh, di wax ne présidente kontaan nañ ñun ñëpp damay wax ci turu staff bi ko wër ñun ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne kontaan nañ bu baax ci jàpp bi ñu jàpp ak ci ni ngay liggéeyee ak ñun. comme ni ko tonton Birame waxee rek li muy saf ku ko ñam rek ki ko ñam rek moo ko xam yaakaar naa ne kii ku ko ñam ku ànd ak moom ci liggéey danga xam ne ku baax la ku xam li muy def la aussi ku am compétence mi maa ngi leen kenn ku nekk si turam ak santam di rafetlu jotaay bi la ma waxoon sànq ci laay delluwaat ma waxaat suñu xoolee mbooloo mi fi toog jigéen ñaa ngi nii xale góor yaa ngi nii mag ñaa ngi nii yaakaar la boo xam ne ñëpp benn jubluwaay lañ ci am kon loolu firndeel na ne bennoo bokk yaakaar bi mu ngi fi kon madame slogan bi nga gëm bi moo la wër donc ëllëg réew soo bëggee xam fu muy mujj da xool li nga xam ne li moom moo taxaw ngir doxal ko donc ndaw ñaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi te loolu mooy axe de développement bi te conseil départemental bii lu ko développé dong la ñu ut te moom jël na responsabilité ak engagement ne suñ ko jàppale ñu gunge ko dina développé département de Koungheul ñu ngi ñaan yàlla nag loolu nga xam ne moom la mébét nañ ko si jàppale ñu dooleel ko ci ba ëllëg li nga xam ne moom la mébét yàlla mottali ko donc ñu ngi ko félicité aussi tam comme ni ko monsieur Diaw waxee si ngont gi nga xam ne moom lañ fi gont tey mu nekk si weeru koor di weer bu tedd lépp lu ñu fi def ci ay xéewal yàlla na ko yàlla fullandi fay ko ko woyofal ko yen bi ba képp ku fi teewit yàlla na nga fi yàggaa teew conseil départemental bi nga ko jox moom mérité woon na ko ndax madame sa Diom joon danaa liggéey avant lii képp ku dem màkk madame Sosa Diom moo la jox màkk moom képp ku xewle moo ko waxee mu ñëw fa ci soxlaam képp ku génn àdduna mu ñëw wacc itam yëpp ñëw jox la ko car macha allah ndogu yi dara maa wut kon madame Sosa Diop Dione ñu ngi lay ñaanal lépp la bëgg na ko yàlla suñu borom bi jox ci barke Cheikh Mouti Diagne Serif rabbi yàllaahu taala madame Sota toog ñun ay famille la ñun ñëpp benn lañ dafa neex kontaan nañ ci yow ñu ngi lay ñaanal yàlla fi nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggal lii ngay yóontu yal na la ko yàlla jox ci darajay Seydina Muhammad ci darajay weeru koor bi ndax nit ku baax nga nit ku baax nga joobu jikko kontaan nañ ci yow. ñu leen nuyu. di jégalu kàddu yi nag ndax tuuti nag fii ci taxu bi waaye li ñu tax a ñëw mooy dafa am lu ñu xam si eh, madame la présidente la Lionne de Bambouk yàlla teg na ko fi ñu ngi ko ñaanal yàlla daje bi ñu oo nii li mu fi def yàlla na ko yàlla ful te nangu ko ñaan yàlla may ñu kàttan ku ñu yeggalee koor gi te li ci jàmm yàlla nangul ñu ko gannaaw loolu li ma njëkk laaj mooy ndax parrainage bi mat na ba pare ma matagul dangeen ko dégg parrainage bi des na nañ ci bàyyi xel ku am carte d'identité wala ku am sa xarit wala sa xama sa xamaale nga lijjanti andi ñu yóbbu si parrainage bu loolu paree ba pare maa ngi maa ngi leen wax ne ku baax ngi nii yàlla laa waxee ci sama bàmmeel laa taxaw xëy na miinu leen ma nag miinu leen ma waaye man yàgg naa ko bëggal sama bopp boobu maa ngi tax si fii Koungheul fii ni booba nekk gut euh, lim doon ni waaye booba soxla woon na ànd naa moom Kaffrine ci wàllu social laay wax am na yàqu-yàqu yu fa amoon ñaari dëkk ñu ànd ak moom gunge ko fii ñaari camion sarse benn bi ay matla benn bi ay dund na li may wax ñu dem ba Kaffrine ànd ak Abdoulaye Wilane dem ci dëkk yooyu wàccee ko fa ñaari ñaari oto yu mag loolu man man man man ca ña ko defoon ca la àndoon li tax mu rangé wu si ginnaaw département Koungheul moo ma ñor ndax fi laa dëkk man amu feneen feneen fu baax itam man daanaka amul ma ci Sénégal te gis naa ne ku ku su si ku bëgg dimbali population bi la moo tax mu rangé wu si ginnaaw xëy na nag xamante guñ mi mi miinante guñ waaye man bëgg naa ko sama bopp. salaamaaleykum mbooloo bi fi teew yëpp maa ngi nuyu ñi fi ñëw yëpp tey di jiital si nuyoo bi euh, madame euh, le président du conseil départemental euh, monsieur Diouf ñu ngi leen di nuyu. madame maa ngi nuyu staff bi la entouré di la accompagner di nuyu tout le bureau du conseil départemental les proches collaborateurs et les collaborateurs aussi lointains di nuyu personalité yi fi toog yëpp euh, boo waxee ñëpp rek bàyyoo kenn parce que soo lumee rek nga juum di rafetlu ci euh, jotaay bi tey parce que dafa dafa dafa solennel parce que def benn yoon bàyyi euh, dañ ne dañ dañ naan des na mais soo defee defaat defaat defaat vraiment finalement dañuy wax ne c'est une tradition et c'est une tradition boo xam ne bu heureuse la voilà donc euh, madame ñu ngi feddale encore une fois rek kóllëre bi boo ñëwee fii di nga gis ne euh, c'est salutaire am na am na yaakaar lool di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal yaakaar bi parce que ñi fi ñëw yépp détermination lañ fi ñëwee kenn ku ci nekk boo ko waxee joxe fii kàddu na wax dina fi wax kàddu bu weesu am solo ci keneen ki euh, la mu wax donc loolu day prouver euh, la personalité de madame le président c'est une forte personalité boo xam ne elle le point convergent de donc de de de de tout le département de Koungheul ñëpp am ci moom yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar bi voilà donc euh, moom principal sànq li mu wax dëgg la def def maa jàngal te lam ma jàngal nag xam naa ko c'est un éminent principal boo xam ne tey ji Koungheul képp koo xam ne xam nga ko xam nga ne jàngal na fi ñu bëri ñoo xam ne dem nañ ba ñëwaat encore di liggéey si yeneen bureau mbaa mbaa di jàngale donc loolu ñun suñu fierté la donc principal Lamine Diouf toutes mes félicitations et puis ñu ñëwee encore ñu fekk yaa ngi si ginnaaw madame Diop madame Socé job ngay liggéey ñu ñëw. climat bi la Dakar dafa xaw a sedd ñu ñëw Koungheul mu mel na mu meloon rek biñ fi dëkkee di dem di jàngi di ñëw maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ku ci nekk di leen nuyu. ci seen tur ak seen sant ni ma ko bamtoo woon ci suba rek euh, buntu conseil départemental maa ngi balu ak ñépp di bal ak ñëpp xam naa ne nag am na ñoo xam ne tooñ naa leen ku ma tooñ te yëguma ko maa ngi lay balu ak ndax weer wii ñu nekk ren jii yal nañ ko nekk ay déwéni déwéni déwéni déwén kon nag képp koo xam ne nekk nga fi jox naa la loxo ku ma ci tooñ it maa ngi lay balu àq ku ma ci tooñ it na xam ne dama koo tayul ndax man aw ma sax di tooñ nit ñi léegi-léegi rek ma draye nit ñi rek comme ñoom lamit nit ñuy def waaye loolu weesoo bugguma kenn mer bugguma kenn mer bugguma kenn jàmbat tey jii ceeb bi ñu doon séddale su ma sañoon képp koo xam ne kii yaa ngi fi da ngay diri saako ceeb diri saako suukar waaye xam ngeen ne jamono moo xaw a naqari tuuti donc loolu aussi maa ngi ci jégalu moo taxoon ñu ne ceeb bi ak suukar si nécessité yi rek lañ koy jox. di leen wax ne lii nag ñu def tey dañoo am habitude di ko def mu ñuy jig ndax at mu jot danañ togg ndogu woo suñ militant yi woo ñi nga xam ne suñuy dëkkandoo lañ woo suñuy mbokk. woo képp koo xam ne yaa ngi dëkk Koungheul ak képp koo xam ne yaa ngi ci département bi ne ñëw leen ngeen dogu kon nag lii c'est un peu apolitique ndax bu ngeen ko xoolee presque parti yi fi nekk yëpp parti opposition yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk sax ci liste parallèle yi defoon ko ak ñi nga xam ne ci yeneen tendance lay nekk tey jii ñu ngi fi ñun ñëpp ñu bokk xàccandoo dóorandoo donc keneen ku ko defoon it man boo ma invité dinaa ñëw ndogu si te it maa ngi xaar seen ndogu te xam naa ne comme fan nekk moo ci des xëy na dina am ñoo xam ne dinañ organiser ndogu daal ñu invité di leen wax ne nag maa ngi leen di tàllal loxo surtout ci lii nga xam ne moom la ñu son excellence le président de la république dénk muy conseil départemental bi parce que moom moo ñu investir population bi nangu ko ndax buñ ko nanguwul woon du ñu woteel ñu gañe ko ndax li bëgg mooy ñu développer suñ département donc képp koo xam ne yaa ngi fi tey te nekkoo fi wala ngay conseiller man vraiment maa ngi la loxo juróom-benn fukki conseil yi ñu tànn mu jafeer lool lool lool parce que boo ko seetee ñi ñu woteel daanaka mët na euh, ñaar fukki junne nit ak juróom nga war cee tànn juróom-benn fukk dafa jafe woon lool lool loolu aussi maa ngi ciy dégg jéggalu bu baax a baax a baax commission yi aussi maa ngi ciy jéggalu bu baax ndax day commission yoo xam ne mën nañ toog ba fii juróom-benn weer ñu changé waat daal di teg ñeneen ñu daal di toog ndax commission yi fi juróomi at la donc peut di nañ changé waat ci commission yi nga xam ne duñ dox wala yiy dox mën na am na ñoo xam ne nit ñi danañ leen aw loolu aussi man ñi nga xam ne aussi dañ leen jox leen kàddu te xam naa ne xëy na dañoo sonn ndax am na ñoo xam ne nii vraiment ñemewuñ koor ñi ngi dëtmu ñii ñi ngi nelaw loolu aussi ñu ngi ciy jéggalu loolu yëpp <laughs> loolu yëpp <laughs> dañ bëggoon rek xumpal affaire yi te comme reer bi parewul woon nii rek lañ mënoon a def dajale nit ñi ñu toog daal di waxtaan mais fu mu ne nii pare na ne ba ñu ngi dagg mburu mi. di leen wax ne daal vraiment yéen ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne conseil départemental yombul ndax département moom lañ wax ne nañu ko diriger bu njëkk ba réew mi lañ doon wax ñu am président de la république. ba mu yàgg ñu ne conseil régional ñu am président conseil régional léegi conseil départemental la ak conseil fi dëkk. ñoom ñoo koy développé du loo xam ne nii dañ koy jël rek dajale ni ñu ñu toog fa waaye dañoo wax ne nañ liggéey nañ dem uti nañ nañ gësam xel yi ak xalaat yi ñu ne lii suñ ko defee suñ département bi dana jëm kanam lii suñ ko defee danañ fi am yeneen hôpital yoo xam ne nii dañuy moderne am fi lycée am fi ay centre de formation wutal xale yi liggéey wutal jigéen ñi liggéey looloo tax ñu ne conseil départemental képp ku ci am xel képp ko am neex am nga xalaat képp koo xam ne sa loxo gudd na képp koo xam ne am nga ay nit ñu ñu war a dimbale muy ci réew mi muy ci bitim réew vraiment vraiment man Soxna Diop Dione maa ngi lay tàllal loxo di la wax na ngeen jàppale ma ndax cinq ans yi nga xam ne mooy suñ premier mandat wax dëgg yàlla ñu def fi loo xam ne nii dañ naan jigéen ñi ñoom ñoo ko fi def surtout yéen jigéen mi am na ñoo xam ne am nañ loxo yu gudd am nañ ay relation ku mel ni Aïda Camara par exemple femme de développement la xam naa ne bu ñu jàppalee ci conseil départemental bi dina am jigéen ñoo xam ne nii vraiment duñ jooy te dinañ fi mën a am liggéey maire Baga toog gis naa ko muy dem di ñëw Thiès di dem ci ay séminaire mun na jàppale moom jigéen ñi ci loolu noonu kon yéen ñooñu maa ngi leen di tàllal loxo di leen wax ngeen jàppale ñu ci conseil départemental pour mu daal di dox. politique bi dañ koy jël teg ko fële képp kuy conseil même ñu nekk Pastef ak ñu nekk PDS ak fu ñu mënta nekk ñoom ñoom maa ngi leen di tàllal loxo. donc nañ leen teg politique bu fële ñu liggéey comme ça ñu ne jigéen ñi ñoo fi def lii ñetti jigéen ñoom la fi président teg ci ci réew mi yëpp kon nag war a ñoo des gannaaw ndax daf ñuy wan na lépp loo xam ne nii góor mën na ko jigéen mën na ko te su beneen mandat amatee yaakaar naa ne dina ko yokk ba mun naa am sax mu def parité bi def vingt six fii vingt trois fii fii mu def fa vingt trois donc ñun test la fu mu ne nii ci ñun ñun ñett ki nekk Sédhiou Tivaouane ak man mi nga xam ne moo nekk maa nekk njël maa ngi leen di ñaan di leen ñaax daal vraiment ku ma ci mën a jàppale rek na ma ci jàppale ndax projet bi dem kanam ñu ngi dem nag ci ay élection yoo xam ne foog ma tudd ko bëgguma ko woon a wax parce que dama ne tey jii du politique ndax social moom la dem ndax dañuy dem ci élection député yi élection député yooyu nag képp koo xam ne président teg na ko fi ñun ñëpp nañ ko tàllal loxo jàppale ko waaye nag ci kaw moo muy koo xam ne kii buñ ko fi tegee dina gañe bu fekkee ne teg nañ fi koo xam ne wóor nañu ne président de la république dafay perte élection yi dina am noo xam ne dinañ ko def ba élection yi di ko perte loolu moom dama koy wax ca kaw ñëpp déggu duñ nangu ñu investiral ñu ñoo xam ne nii dañ ñuy daane te duma ko nangu ndax 2014 biñ demee ci élection yi président département Koungheul ak département Kédougou rek la perte te xam ngeen ne loolu gàcce la ndax lu ne defal nañ ko ci département bi kon département bi war ñu ko perte maa ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm jeunes yi. di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci waañu di ñu toggal muy géwél yi ak lawbe yi ak ñi nga xam ne xale yi la di gërëm nag amazon yi di gërëm ama maire yi ak ama père yi fi nekk presse bi ñoom xam naa ne semaine prochaine dinaa leen recevoir parce que li leen manqué bëri na ñaari organe de presse donc moom lañ fi am kon conseil départemental bi dina leen gunge yéen ñëpp maa ngi gërëm ñëpp parce que tey bésu gërëm la ku lim nag da ngay juum mais ñëpp ku tudd ku ma tudd sa tur wala ku ma tudd sa maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm surtout ama yi nga xam ne ñoo samp kër gi jël euh, amazone yi teeta leen di gërëm góor ñi nga xam ne ñu ngi nekk di gërëm ñoom tonton Barxam Thiam Modou Guèye ñoom ñëpp ak Kasro Mbuub mi nga xam ne moo ma yar ba ma doonee gune ba léegi ndax maa kara jabaram la woon yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm ñi nga xam ne dañoo déplacé wu ñëw fi ndax presque commune yëpp ñu ngi fi waa nguy jéeri ñu ngi fi gis naa leen fi waa Kumbija Soose yi ak waa Koso yi ak waa Saali Escale yi li mu gudd gudd ñëpp ñëpp ñu ngi fi vraiment jërëjën jëf parce que li gën a jafe ci àdduna mooy woote ñu ñëw wuy si la te yaakaar naa ne ñëpp ngi fi département bi yëpp mi ngi fi di gërëm waa commune Koungheul bi ñi nga xam ne ñooy dawal jakarta yi ñi ngi fi ñoom tam maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam di gërëm sama mbokk yi nga xam ne ñoo jógee Kounou ak ñu jógee ko Kaba ñoom ñëpp a nga fi merci jërëjën jëf voilà